c'est pour dire le malheur tey à Podor pendant que priorité éducation bi des des des des écoles yoo xam ne c'est c'est transformé en champ de patates kenn mënu ko jàng le et tout ça mais qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui c'est le ministre de l'éducation qui ki qui qui qui peut faire ça école nga dem dafa dafa dafa jëmbat ay patates non non non jëmbatuñu c'est-à-dire que taw bi su ñëwee ñax bi lay dugg il faut désherber c'est-à-dire que yow manque d'entretien loolu mën nañu di pataas ci ay école non non non non transformé ah, non non waxu la dañu fay benn pataas c'est transformé en champ de pataas ça veut dire que il y a les herbes il y a voilà c'est tout sauf sauf une école waaw léegi qu'est-ce que vous faites waaw c'est justement c'est ça xam nga mënuñu am c'est-à-dire que c'est des le malheur c'est que c'est des c'est des c'est des années c'est des ouvertures yoo xam ne qui se succèdent et qui se ressemblent chaque année c'est mais justement moo tax ñu koy wax c'est-à-dire que chaque année c'est la c'est le même le même rituel entre guillemets il faut aller désherber nee nañu ouverture c'est le cinq tey demain demain mais demal soo demee un peu dans l'île yéen par exemple la Lamine euh, parlons peu bien ngi wax ci ci ci ci ci Rama dinaa ñëw ci moom léegi le mouvement Podor va mal lan lay def concrètement à part mais c'est ça que nous porte un plaidoyer et puis dañ ci jàpp les écoles là y a des jeunes qui sont là-bas de faire physiquement ñu ngi foofu dans les écoles di désherber un peu des écoles mm-hmm. c'est ça que je dis cest à que xam nga ñun su fekkee am na ñun ko dénk war ko toppatoo c'est ça c'est ça le paradoxe fu ñu nekk fu ñu toll nii xam nga on parle d'éducation doyen wax na ko sur toute la ligne gisuñu ci presse bi mettre l'accent sur l'ouverture mm-hmm. pendant que ñu ngi nekk ci ouverture tey le ministre de l'éducation il prépare une finale le 14 à Ndioum que le ministre candidat le premier ministre candidat doit venir présider. vous trouvez ça normal ça est-ce que vous trouvez ça normal. bon. c'est ça en fait c'est ça moom la ñu dund c'est-à-dire que on a le les priorités sont autres, c'est ailleurs. Mais, Mais, mais, mais par exemple, il y a beaucoup, de, de, de, de trucs de, de Benno Bokyaga là, Mais ça dégage. C'est un sale, il y a, il y a, il y a racine, Mais pléthore de ministres, pléthore d'autorités. Mais il faut que Podor, c'est le département. C'est-à-dire que département. C'est-à-dire que Si j'ai allé dans Benno, c'est-à-dire que Podor fait partie aujourd'hui du département. Moussa Diop, Moussa Diop. Ah, c'est ça, là, bon. Euh, il est de Podor. voilà mais même bu nekkul ah, benn bokk yaakaar il est de Podor. non sax xam nga soo doon lim. ñun c'est-à-dire ñun on s'attarde même pas sur xam nga lu tax on s'attarde pas sur ça. non man maa leen di non non je c'est important. ce sont des gens yoo xam ne c'est pas parce que tu es de xaw ma dans le gouvernement ou tu es ministre ou autre chose que da nga war a doog a def parce que maître Moussa Diop moi je me rappelle daan na may ay cahier affaire mais <laughs> boobu il était directeur de benn bokk de comment ça s'appelle <laughs> Dakar Dem Dikk. bon xam nga mais léegi en fait tout est politisé. boo ko nekkatul fan nga jëlee les moyens. tout est politisé l'expérience sooy wuti. di ah. wuti gars yi di campagne. tu cherches tu as des pour le faire ñoom di def yëpp ñëpp xam nga xam nga leen ñoom ñoom individuellement. Mm-hmm. ñu ngi ci xam avant d'être ministre ou député ou DG. vous les jamais vous les avez jamais vu donner un cahier. mais aujourd'hui ils sont devenus des milliardaires des millionnaires ils font du n'importe quoi di maye ay cahier di joxe ay lu nekk. mais ay cahier tax na nga nekk milliardaire aussi. non je vous dis c'est une façon de dire que mais même mais c'est c'est c'est bien. mais mais c'est ça que je moom lañ lay wax léegi xam nga yaa ngi leen di cité tax ma lay wax. xam nga xam nga xam nga suñ la nee. ma jox benn exemple balaa ñuy avancer mën nga concevoir un département comme le département de Podor. Mm-hmm. tu n'as même pas de scanner. fii ñuy wax nii fu ñuy wax nii misaal fii ñuy wax depuis 77 80 l'hôpital de Dioum le scanner si tu as un malade hospitalisé bu war a def simple radio scanner. on te met dans une ambulance yóbbu la 400 kilomètres. Ah, loolu mooy wax on t'amène jusqu'à on t'amène jusqu'à Ourossogui bu campagne bi ubbee nga gis l'argent qui coule à flot et eh, eh, eh, aux dernières informations c'est-à-dire un scanner ne coûte même pas 400 millions est-ce que mën nga concevoir loolu. Mm-hmm. c'est ça le paradoxe mais c'est ça le paradoxe tey xam nga misaal bi naan xam nga lu muy niru nga ne ñu xëy Dakar ñu ne désormais képp ku ci def radio scanner dañu lay yóbbu ba Kaolack defal la radio scanner dellu si la Dakar c'est ça que les populations vivent dans le département de Podor. Mm -hmm. c'est ça cest dire que c'est ça mu c'est ça le détail. est-ce que ah, mën nga comprendre tey tey si si le président premier ministre doit venir présider une finale il sera accompagné au minimum de cinq ou de six ministres. c'est toute une bamboula c'est des millions et des millions qui vont être dégagés pour cet événement-là. pendant ce temps les populations trinquent. meurent sur la les routes d'évacuation ñenn ñoo ñëw cérémonie bi c'est les populations. ñenn la ñu sol ay t-shirt ay casquette ñuy tàccu. c'est qui qui est responsable ñoom la ñoom ñoo ñàkk fayda. ñoom ñoo ñàkk fayda quand les gens exploitent la misère des gens. xam nga quand les gens utilisent. mais dignité dafa baax ci doomu aadama mais justement ah, mais justement d'accord avec toi xam nga yow doo ko nangu man dama ko nangu keneen du ko nangu mais il faut voir un peu les gens comment ils vivent ils sont dans l'extrême pauvreté. C'est ça. il faut comprendre ça cest dire que tu quand tu avec des millions et tout ça. tu viens voir quelqu'un boo xam il n'a même pas 1000 francs pour acheter benn yaboy. si sa mariage c'est ça un peu la. la pêche marche pas marcher parce qu'elle n'est pas développée. mais Podor naka la pêche bi. moo c'est-à-dire on peut cest à Podor non on a fleuve Sénégal ça c'est le pisciculture lañ la navigation fluviale mais malheureusement du seen priorité bon du seen priorité du seen urgence c'est-à-dire que du ñuy jooy malheureusement c'est ça qu'on d'accord ça qui fait que campagne agricole bi dugg ñu sax. wax na ko en pleine campagne agricole